non jërëjëf jërëjëf waaw instant bi nag jàpp benn autorité jàpp ci benn benn benn benn benn autorité bi gën a néew jàpp ci pour l'instant nag ci kaa Mouhamed moom ñi ngi ci ànd ak benn député boo xamante ni chaque jour danañ déggante mooy député diaspora la moom chaque instant danañ déggante macha allah moom wax dëgg fa yàlla am na ci yéene moom bu baax a baax a baax a baax xëy na nag du ma tudd fii turam parce que day am ñoo xam duñ bëgg yooyu noonu mais daal macha allah moom daal jàmbaar la ci daal mu ngi ciy def ay jéego waaw ngeen ñaanal ñu si baax rek ci Ka Mohamed parce que Ka boobu tamit daf ma gën a intéressé trop trop trop trop trop trop sax euh, parce que moom la ñëw daal ah. waaw kii mooy kumba kii mooy kumba kii mu àndal mooy yaayam kii mooy kumba ki sol lu noir lii nii lëg ko mooy kumba meer bi mu àndal mooy yaay non vidéo yi de moom dama koy jaay <laughs> non vidéo yi des moom dama koy jaay vocal bi de wax dëgg yàlla dama ci wax rek mooy damaa waxoon ne daal bu fekkee mën naa bàyyi seen xaay mu kon émission bi dama nga jéggal ma ko daal maa ngi koy sàpp ndax daal wax dëgg yàlla mbir mi toll na ma foo xam ne waaye nag ma ma ma doole ci leen ndax xëy na attendance seen xaalim di ñëw man li ma bëgg a laajaat ndaw si ndax autorités yi ñoom ànd ak yow ñoo ko daggal biyee état bi ñoo ko ñoo ko jël en charge wala dëkk ba maire ba ñoo ci jàpp ndax di yaa jël yaa dagg biyee wala ay mbokk ban air moo ko andi maanaam ban ban ban compagnie aérienne nga réew réew ñu andi ko ak it bi nga ko fayal ñaata la ak ñaata nu mu demee daal maanaam indi ji nu mu demee dëgg dëgg dëgg ni nga def ba indi ko jële ko fa indi ko fi ak kañ la ñëw Sénégal ak kañ ko yóbbu ci ay mbokkam waaw suñu léegi question boobu mën a laaj ci kaw ñëw ci question boobu numéro boobu ñëw ci ndax jàpp naa suñu xaar bi foogoon naa dana mën a na moom it a continuer rek bu a yem ñu yem fa rek yi danañ comprendre xam naa naa nañu continuer ci question yi mm, ndax dafa ci am solo ñu jàngale ko donte na ñu jëm ko àggale dimbali ma ñu ma ci question bi rek ni nga def ma ndaw si ñibbi si tënk ko dëgg la waaye nan nga def ndax maanaam bii bi mu dagg ñëw Sénégal yaa ko daggal yaa ko fay mu ñëw wala ay mbokkam ñoo ko fay wala état bi ñoo ki jàpp kan moo la ki dimbali ba nga indi ko

li ñu naa wax macha allah jërëjëf kon loolu leer na léegi est-ce mën nañu xam billet bi ñaata la ak ban bis la ñëw ak ban compagnie aérienne moo ko indi ak ban bis la ñëw groupe bi dañ ko tijjiwaat léegi incha allah waaye dañuy sàkku ci képp koo xam ne yaa ngi teewlu émission bi jeexagul ñu may ñu àggale bu ñu àggalee ñu door a jàllale seen i taxaliqaat lu waaye mënta ñàkk def daal lu weesoo daal écrire mën naa ñàkk ci audio ndax ndax day yàq waaw campagne bi ko jëlee fee nag nan yemen yi sax la tudd fàtte naa tur bi yemen yi de mais moom mi ngi ko jëlee eh, adan daf ko jëlee eh, adan eh, non daf ko jëlee foofu noonu sanaa ba adan après am boo xamante ni moom moo ko jëlee adan yóbbu ko Égypte non Djibouti mu jógee Djibouti après jëm Égypte bi mu jëmoo Égypte maanaam bi mu jugee Égypte fu Égypte na xaw na faa diire foofu la xaw a diire tuuti après ci la jëlaat avion bu Éthiopie Airlines la jël mu andi ko euh, Éthiopie bi mu ko indee Éthiopie après jugee Éthiopie ñëw Sénégal mais escale na Mali mi doon ma xool mercredi bi passé ci la woon waaw euh, après ci lañ ko jëlee aéroport. Eh, jaajëf non non non xam nga foofu du tout le temps la affaire yi tar yan saa de tar yan saa mu mu régal ni affaire yi wàññeeku yan saa mu tar jamono bii nag xëy na tax ko tar trop trop trop xaw na wàññeeku tu macha allah sëñ Cheikh naa jërëjëf léegi xam naa kon ñu njëkkante waxtu yi presque temps bi jeex na gis bëreetut léegi ñu laaj la yow léegi après bi ñëwee Sénégal mercredi dafa ñëw rek nga yóbbu ko Sénégal nga yóbbu ko nga yóbbu ko ay mbokkam ndax foofu tamit jar na laaj beneen jar na taxaw seetlu ndax lu tax mooy koo xam ne dafa réer ay mbokkam 42 ans mën nga koy gisal ak yaayam joo xam ne mi ngi ko taw xam ne baayam sax nakk na nakkul na fi ay nit judd nañ fi ci ginnaawam ba nekk ay mag am fi ay soxna ci yaayam 18 ans la am actuellement presque mën ne am na am na 50 ans jëm kaw kooku dafa aajo waajal waajal pour yóbbu ko yan pexe nga def ba yóbbu ndaw si nan nga def noo sukkandiku yan mën xel noo noo sukkandiku ba yóbbu ndaw si fi jàmm ak salaam te benn jafe-jafe amul waaw bi mu ñëwee nag maa ngi mère femme moom ñoo ñëw kooku doon wax ci kaw xaadim mm, Touré xaadim Touré moom noonu yaayam mooy mère femme mooy ki njëkk a envoyé kii bi borom baat bu neex bi rek <laughs> mooy mère femme léegi ñu ñaar ñu ànd dem jëli ko ñu jëlee tamit ñëw bu mère Fama ni ma da nga koy yóbbu sa kër ma wax wax mu il faut sa kër lay dal parce que maanaam liñ ci xam ak liñ ci dox ak yooyu noonu ak miinante gi miinante yow ak ak tamit làkk bi yooyu noonu yaa ñu gën a maîtriser yëpp sa kër lay dal te xale yi tamit ba mu fa jugee dañ ne woon suñ yaay yow lañ ko dénk <laughs> suñu yaay yow lañ ko dénk ba chaque instant dañuy oote mais li gën a yéeme bi may dem rek bi may dem xam nga dañu dem aéroport fekk gars yi téye ko foofu noonu maanaam xam nga aéroport bu wàccee rek yore passeport Yemen Yemen dafa nekk catégorie C catégorie C bu ñëwee maanaam boo amul sens ba dañ lay delluwaale dañ lay delluwaat fa nga jóge woon ñu toog foofu noonu instant boobu noonu rek maa ngi bëgg a dekki message parce que doomam yi kenn ku nekk message yu dul jeex nga xam te dañoo mujjee créer benn groupe comme euh, ñu tuddee ko ummi habibati ñu tuddee ko groupe boobu noonu nga xam ne ñoom doom yi ñoom ñoo nekk foofu noonu nga xam message information yi foofu laa leen ko doon dugal directement léegi bi mu ñëwee Eh, ma ni ko déedéet instant bi moom xam naa dang nga koy comme sa seen bokk laa yooyu noonu sa rakk la te dafa jigéeyante yooyu gëj ngeen a gisante bu ko defee ngeen fanaan fu mu fanaan foo ngeen na monte ko bi mu fa fanaanee suba daal di ñëw ci kër gi parce que ma jaar la ko pharmacie jaar la ko kër gi parce que comme que tamit maa ngi ci doon dox ñoom ñu yëg ni maa ngi ci doon dox te xamaguñu exact fan laa toll ak yooyu noonu wan leen ni kat kumba moomu doon wër kat moo ngi nii macha allah moom mu ñëw fi xorom lool ndeysaan xorom lool ngan gu neex a neex a neex après bi ñu xëyaatee suba ci àjjuma ji ci lañ ko yóbbu Fuuta mais Fuuta bi ñuy dem dañ leen a njuy dañ leen wax ni leen dañuy gont ñëw daal di xëy parce que bëgguñu buñ xam nañ buñ leen waxoon dañuy gontu nit ñëpp dañ fay dajaloo dajaloo boo xamante ni peut-être buñ egsi nañ ko gaañ léegi ñu xëy dem bi ñu xëyee dem egsi bi ñuy dem fekkuñu kenn ci kër gi mais même pas deux minutes kër gi fees dell même pas deux minutes kër gu fees dell vidéo yeeg yooyu noonu tamit ngeen di gis waaw appel bi moo vidéo bi léegi li taxoon tamit ma ma kii maa ngi jéegul de tax tamit vidéo yooyu ne ma jël ko tamit doomam yi ñoom ñoo ma waxoon ni ma lépp nag ñu ko film envoyé ñu ko da nga film lépp envoyé ñu ko looloo taxoon ma jël vidéo yi mais kon tamit ragal naa burtoon loolu euh, duñ fa jël benn vidéo barke yàlla ku ma waxati ibaadu xeex gis nga kii nee na taalibe piir laa nee na taalibe sëñ piir laa ku ma waxati ibaadu rek danay xeex eh, sëñ Moodu li ma la wax wax dëgg eh, kii nee na may tuddee doom mais li gën a yéeme li gën a laa lay wax nii de barke rasulaay du caaxaande du moom ngir yàlla dégg leen ma sérieusement comme jeewu ma de naar mi man na la ci wax Sidi Fall mi ngi noonu na la ci wax leer gis nga euh, tudde nañ ma fa doom tudde nañ ma fa doom te suba la ngénte la maanaam dimanche bii la jàll la juddu te tudde nañ ma ko te suba la ngénte la maanaam li gën a yéeme doom ji bi muy judd maanaam dafa judd rek dafa judd rek ñëpp yuuxandoo seexu na seexu na seexu na seexu na yàlla kay. seexu naa macha allah xam naa question bi yaakaar naa bee ciy des yi ndax xam naa ne question yi bëree bëree bëri ñu ma ko feefee waaye yàlla xam na ne actuellement li may yëg ak ñu bëri la ñuy yëg mën ma la kaa sax wax suñu xaam caa mi ci yeneen groupe waaye groupe yooyu sax ci boom ñoom dañoo mujj di soppeeku ndax émission bi ni mu demee xam naa kon liñ bëgg a jaar laaj mooy yow nag bi nga demee ba àgg ci dëkk ba nag réaction yi nu mu demee ku toog 42 ans sa mbokk xanaa mel na ne ba Youssoufa day gisee ak euh, lu toog mel toog lu mat a moom it gisul bàyyam na ma nga koo misaale comme noonu ba fa demee nan la demee gisante gi nu mu demee nu mu demee dëgg-dëgg gisante gi nu mu demee loolu bëgg nañ nga ñëw ci après bi gisante gi amee ñoom fan njukkal yi fu mu tàmbalee na ci aju yëpp yëpp daal nga ñëw ñu ko bu ko defee ñu def question boobu question bu mujj léegi bàyyi ko mbokk yi damaa waxoon dañu ne question waaye nag lii moom question bi moom faaw ma jàlle ko di la xamal ne audio yi suñu seex gay après dana leeral yëpp ci olof li ma la bëgg doole ci lii ndax ci ba audio bi la ma dabee ma bëgg nga leeral ko mooy ñoom ñoom xam nañ kumba bi ñu gisee kumba est ce que maire bi xam na kumba est ce que kumba xam na moom woon bi mu ñëwaatee na xam ne dëkk bi maa am daal 42 cent du caaxaan loolu bi mu ñëwee xanaa moom loolu est-ce que maam namante ko kooku wa maam ndax xam na ba yaayam ndax yaayam xàmmee na kumba kees taaw maam daal ndax kumba bi gisee yaayam xam na ko ak yaayam bi ngi kumba ndax xam na ko ndax 18 ans nga yële ko seen mbokk maam presque 50 ans door ñëw loolu waaw xam na ko parce que après bi ma leen foole ma leen doon def ay appel vidéo jël photo kumba yu bëree bëri ñu envoyé woon ma wax ñoom xanaa ñu envoyé mo photo kumba ma envoyé ko yaayam gis ko ma jël tamit photo mo photo yaayam tamit photo yu bëree bëri envoyé ko tamit ñoom kumba waaw kon fo travers de réseaux sociaux yi xamante nañ xàmme waat nañ retrouver waat nañ kanam yi waaw. waaw maire bi ko xam kumba dana ko xam waa dëkk bi xam nañ ko. waa dëkk bi ñoo xam nañ Kumba est-ce xamoon nañ histoire Kumba wala ñoom dégg lañ ci amoon. question yi daal dama duggaatoon léegi ci pexe yi di wër question yi gis ci question bu am solo boo xam ne naa ko jàllale donte ku may na daa bëgg nga ko wax ko xam lan moo tax Kumba a ñibbisi Yemen gam nekkoon situation bi dafa critique a jógee foofu ñoom ñëpp ñibbisi wala doom yi dañoo bëggoon seen yaay gis seen maam gis seen seen yaay gis seen maam rek moo tax mu ñëw wala dañoo bëgg ñibbisi Sénégal ndax dëkk ba daa neexut non non non non neexul ci ñoom dëggaa mais nag fa lañ dëkk fa lañ miin mënuñoo bàyyi yeman seeni njaboot fa lañ nekk seeni kii e, dañu bëgg moom liñ bëgg mooy seen yaay ci boppam moom mu e, dafa bëgg gis yaayam te maamam tamit bëgg seen maam tamit bëgg naa gis seen yaay. mbokk yi jërë ngeen jëf xam naa émission bi moom fii lañ koy mujjee yemale sant yàlla mi ñu may ba nu ko àggale na foogoon naa du ma ko mën a àggale waaye wax dëgg yàlla foog naa ne émission bu ni mel wala lu ni mel man mosuma ko gis te jàpp naa bari ci ay moroom ndax nit ku réer ay mbokkam lu mat 42 ans ñeent fukki at ak ñaar nga def ay pexe ba gé ci li nga xam ne doo ci am lépp ci mu ko wax ci aw làmmiñ suñu seexu naa yow mii la bu bakkan bakkan nga sowee ko ndax même ndaw si même bokkuñu ay mbokkam tey fa mu nekkoon dansé ga ci nekkoon mënoon naa faa jaare ñàkk bakkam te du gis a tee métti ci yaayam métti ci ak njabootam nga di fexe ba indi ko kon xam si nii lii dafa jaadu woon Sénégal gi yëpp xam ko dafa jaadu woon télévision yi jël ko dafa jaadu woon Macky Sall mi nekk président de république xam ko xam ne nit a ngi ci Sénégal koo xam ne def na loo xam ne lii bu doon ci yeneen réew yi héros ngay doon yow héros ngay doon bu doon ci yeneen réew yi Europe wax dëgg yàlla héros national lan la war a jàppe yow Cheikh Oumar ñu ngi kontaan xol tooy na groupe yoo xam ne ñi ngi bi seen xol tooy na ñi ngi lay ñaanal yàlla fay la tiyaaba juñ ci am yàlla na yëpp xaj nañ ci kontaan na man li ma bëgg wax sax man mun kaa wax ñi ngi lay ñaanal baax a ya yàlla xam na ni personnellement man dama leen bëgg ñoom fu ma leen gisee rek muy seexu naa di siidi di abdoulah fu ma leen gisee rek sama xol sedd yàlla moo ko def ay nit ñu baax lan ñoo xam ne ay man jàpp naa ne bu nee ñit àjjana man ñoom ay ñit àjjana la te ñu na yàlla fay yàlla nga gudd fan yàlla yàlla nga amagu wér lu baax li nga dégg def ci mbo doomu yàlla mi nga xam ne moo am ko yàlla na la ko fay man jàpp naa ne sax yow gënna des lu boo dëkk woon di mooy yàlla dégg nga dem àjjana ndax yow lu baax rek ngay def lu baax rek lañ xam ci yow kon waa Maalem Info groupe baa ngi noonu ubbeeku na ko am lu mu bëgg a jàll na ko jàlle waaye yàlla xam na ne sama bisub tey bii ragal naa ne ba ma dee Moodu ba tey mësuma dund bus bu ni mel ci ak yéeme ak xol bu sedd waaye nag ak xol bu xol boo xam ne it liw na lool ci jët yu rëy yi nga xam ne Sëriñ a Fall bi def na ko maa ngi jégalu baax jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup jaajëf waaw ak tamit yéen tamit jàpp ngeen ci combat bi waaw yéen ñu doon ñaan ñaan ñaan ñaan dompat sax ci ci kii la ci sot la boog quoi wax dëgg yàlla yéen ngi ñaan yi yëpp jërë ngeen jëf sant baax baax baax yokk leen ñaan yi rek bu leen arrêté ñaan